murit bu am jom ba mu bëggee ndam màggal ca lay jëm du xew du ceetal yàlla nu dégg ndigal te dégg màggal gi dëgg ba di ko màggal màggal gi lañ am amuñ lu dul moom nañ farlu am jom te di ko waajal màggal gi lañ am amuñ lu dul moom nañ farlu am jom te di ko waajal màggal gi rekk moo tee nu dëkk niiraanu dëgg murit

jërëjëfe sëriñ Touba jëfe sëriñ Touba jërëjëfe sëriñ Touba jërëjëfe sëriñ Touba yaa ngeen jëf ñoo ngi nuyoo tàmbalee nuyoo bi ci Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké mi fi nekkal sëriñ Touba di sëriñ Touba yal na fi yàgg te wér na ñëpp na ko ñëpp wax yàlla na fi yàgg te wér na fi yàgg te li mu bëgg liggéeyal maamam ànd koog ay bokkam ak taalibe Sëriñ yépp yëpp yal na nu ko yàlla may ci moom ba mu yegg fu kawe njortam ak mboolem njabootam di njabootu Sëriñ Tuubaa gi topp ci ginnaawam ñi ngi am mbégte lu yaatoo yaatu am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem ndax barab bii ñu toog jotaay bu mel nii mësu fee am ci diine lislaam mësu fee amee nii géej na fi kere ba fi Alaaji Baara Falilu Mbàkke ñëwee yal na nu ko yàlla fayal ñoo ngi siyaare sun sang bu tedd wii toog di Serigne Cheikh Aliou Mbacké mu ànd ak njaboot gi mu ànd ak njabootu maam Serigne Touba gépp sëriñ Khadim Mbacké waaye ki nga xam ne moo jiite délégation bi sëriñ Modou Mbacké si moom sëriñ Moustapha si ñëpp xam ko ci kër sëriñ Touba mu ngi nii toog xam naa li ma war a wax ab taali bi bu toogee ak sëriñam day am lu bëri da cay fattu waaye kat sunu kàddu bu teewee fi teewal fi sëriñ Fallu Mbàkke teewal fi sëriñ Tuuba amatuñ lu ñu wax moom lañ koy jox sëriñ sëriñ bi sëriñ Cheikh ñu ngi leen nuyu ci turu dëkk bi ak turu réew mi dina xamal ne boo déggee siin fii moo tax ñuy wax siin fii ñu toog tey moo tax ñu wax siin jaxaw siin fii moo nekkoon seen wanop fii la ñuy gémboo ak fu mu mën a doon fii la ñuy gémboo lu ma sa lu buur siin ma sa bëgg ak waa jaxaw bu ci joyin gii àndut loola du sotti kon loolu moo tax lu mel noonu moo tax ñu ñu ñu ñu manqué taalibe ñu manqué ak taalibe ñu manqué diine l'islam lii mu su fee am tey la fi am kon xam ngeen ne siin fii li ko bàyyi ba mu meloon ni mu mel ba mu mel ni mu mel ba toll fi mu toll topp cosaan ak gëm cosaan ak wéyal cosaan cosaan tax waaye bis ni ki tey ba fi Serigne Fallou dugalee kàddoom Cheikh Mouhamadou Moussa Fallilou Mbacke dugal fi kàddoom Cheikh Jili Mbacke moom sëriñ Fallou moo jëkk a fanaan ci néeg bii ñeenti ñeenti màggal sëñ Abdou Fatah fanaan na fi njaboot sëñ sëñ ñu bari fanaan nañ Serigne Galas Mbacke Fallilou moom Cheikh Mouhamadou Moussa Fallilou gàmmo na fi ay gàmmoy gàmmo ñu di ko sant di ko gërëm kon li fi ci diine lislaam akuk taalibe noonu noonu la fi amee noonu la fi duggee waaye tey jii nag sëriñ Cheikh Alioune ngay sëriñ Touba di Daaru Xudóos di kër sëñ Touba yëpp Cheikh sëñ Cheikh mi toog moo ndoxum Touba ñu di ko maa u rahmati ndox mi waa Touba di jëfandikoo yëpp sëriñ bu tedd bii toog moo ko yore di ko sopp sëriñ Touba di ku bëgg sëriñ Touba ku doyloo sëriñ Touba ku yënguwul ci lenn lu dul sëriñ Touba loolu lan gis ci moom réew mi ñu nekk na fi waajuróom ba sangam bu tedd ba Seex Aliin Mbakke moo fi daañu ñëw sa jooju jamono nga xam ne benn sëriñ ñu mu ta dugg ci dëkk bii yenn fi mbaa nga fanaan waaye moom rek moo fi daal ñëw dugge ko baari ñëw tukaar wër wër dëkk yooyee waaye daaw dugg si fii eh, kon lu fi am ci taalibe am fi ci diine lislaam am fi ci mbirum Serigne Touba waajuram moo ko xàll fii mu ñëw topp yoon woowa di ko dox at mu ne ba lu bëgg mat ñaar fukki at yoo xam at mu jot mu woote fii fanaan ak ñun ànd ak mbooloo mu takk fii ci Toucar eh, saa yu fa fanaanee ñetti at yi weesu at mu ne jàll si na fii ci daara ji ñaanal lu door a def eh, tourné ba muy def loolu lépp nag la ko waral woyof gu ma sëkk ak bëggam Serigne Touba ak di liggéey Serigne Touba rek kon loolu yéen ñi di ay bokkam bokkam moom Serigne Touba kon loolu yéen la ko defal kon ñoo ngi leen di sant ci loolu bu baax a baax Serigne bi ñu ngi lay sant di sant mboolem kilifa yi nga àndal say rak ak kilifa yi nga àndal ci turu Cheikh Sidi Moukhtar mi la mi la jiital ñu ngi leen di wax ne. siyaare leen nu sang bu tedd ba ñu ngi koy ñaanal ñun waa siin gépp xam na nu kuy sëriñ Tuubaa tey ba noo ngi ciy ndam na bi kon na nu ñaanal xale yi njàng mi ci wàll gu nekk nan nu ci sëriñ bi dimbali ba nu am ci lépp ba nu am ci lépp ndax loolu rek ñuy dimbali kon seex sëriñ bi sëñ Moodu ni ma bëggoon a wax dama ciy duggee loolu rek yemale ko foofu yow laa jox lépp xam nga ma xam naa la xam nga kan mooy sëñ Mbay Sekk xam nga kan mooy sa waajur wa sëñ Modou sëñ sëñ sëñ sëñ Moustapha Sy xaritam la woon wëllëreem la woon taalibeem la woon ngir bëgg gëm bëggoon sëñ Fallu ñaari fukki at ak ñett yi mu àndal sëñ Fallu moom sëriñ Mbay lépp sa kanam la bokkoon nañu daje Touba Bogo jërëjëf bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina wa maolana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa ummati ajmain asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki Touba Diohine ñi ngi leen di nuyu ci turu Serigne Touba Cheikh Sidil Muxtaar ak turu jëwriñam yi nga xam ne ñoom la teg ci kanamu njaboot gi muy Cheikh Mouhamadul Muntaqa ibnu Seydil Basir cheikh Mouhamadul Basir ibn cheikh Abdul Qadir ak cheikh Abdul Ahad Mbakke ibn cheikh Ahmadou Mbakke Gaynde Fatma nuyoo boobu dañ la koy jox Serigne Cheikh nga joxal ñu ko Serigne Modou Mbaye Seck ak mbooleem tund wi di leen sant bu baax a baax ci taxawaay bi Serigne bi nee yéen ñi fi taxaw nekk ci kanamu njaboot gi mi ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm mu ngi leen di soññ ci liggéey bii ngeen fi liggéeyee lislaam nee na xam na ne yombut waaye lislaam tàmbulewutoon cig yomb te it al islaamu bada xariban wa sayhudu xariban fa tuuba lil xuraba lislaam yàgg naa metti waaye ci metteem googu ci la mag ñi xuusoon ba taxawal ci liñ ci taxaw kon sëriñ bi nee na yàlla na suñu borom gën leen a dëgëral ci liggéey boobu yi te ngeen am ci meññiteef yu re. rëy rëy rëy nu fi lislaam tollu ren bu ne yàlla nay fukkam sëriñ baa ngi sant bu baax ci taxawaay yi xam na ne liggéey bi yombut waaye xam na ni nii ngeen ànde ak sëriñ seex ànde ko ak njabootuk sëriñ tubaa gi fii ñëw xàmmeewu leen ko ak jëmmam ja ku ngeen fi gis tañ ne ci sëriñ tubaa la bokk ngeen jox ko orma loolu mooy doxinu yoon wi sëriñ baa ngi soññee ci loolu bu baax a baax a baax a baax di dénkaane ci lu ngeen man ci gën a taxawu ndaw ñi ci teel leen a nàmputal ci diine ji xër ci xamal leen ko di waxtaan ak ñoom ci sëriñ bi ba ñu xam seen bopp ba fuñ mën a jëm dara du leen yóbbaale sëriñ bi nee mu ngi leen di sant ci lool yi eh, di di di di di soññee it bu baax ci màggal gi eh, mbooloo mi bàyyi ko xel bu baax kenn ku ci nekk loo man ci sa njaboot ñoo àndal ren bu déwénee nga ànd ak ñoom ba xam ne ku fi yaakaar sëñ Touba dana ne dem naa Touba dem naa ca barab bu tedd ba siyaare naa sëriñ ba loolu nee na mi ngi ciy soññee bu baax lu ngeen ca man waaye bis yiñ fi ta bis yiñ fiy taxawal tamit bisi sëriñ Touba yi nga xam ne dafa mel ne tawfiixi barab bi la ndax ku ne xam na ne su fi amutoo nit waxtu nekk ngeen di bëgg di bàyyikoo fii di dem ba Touba kon bis buñ fi taxawal tamit bisub sëriñ bi lu ngeen ca man ak lu ngeen ca mënul na ngeen ko def ku bàyyikoo tuubaa te ñëw fii te bokk ci sëriñ bi te fekk taalibe yi dañoo waroon a jóg dem di ko siyaare ji nañ jàpp ne am sëñ Touba moo ñëw ci ñoom luñ man ci taxawu ko ak déglu ko mu def ko rawat na sëriñ Seex ak taxawaay yii nga xam ne mi ngi ko fiy taxawal xam na ne su jógee Touba ba fii di taxawal ay bis liggéeyal sëriñ Touba rekk la waaye liggéey ba mu yor ca Touba munta jeex munta xaaj waxtu wu nekk ña ngi koy aajowoo ndax kilifa la la fa ñëpp am ci responsabilité ak taxawaay la fa am ba noppi yoral dëkk bépp nag ndox ma di ca liggéey liggéey ba mu cay liggéey nee na fu ngeen ko gis na ngeen xam ne liggéey yaa ko sëñ Touba la boo xam ne sëriñ bi lay liggéeyal loolu it ngeen xam ko te bàyyi ko xel bu baax a baax sëriñ bi nee na mu ngi leen di soññ ci bennoo yéen ñi nekk fii tey ay taalibe ngeen boole seen bopp nekk benn nekk benn boobu ngeen boole ko ba ci seen mbokki jullit ya seen yeneen mbokk yi ci des na jeneen diine sax rafetal dëkkandoo ga ndax sëñ Tuubaa baax ak rafet li alquran di woote billati hiya ahsan alquran lu mu doon daf naan la ca gën a tedd la ca gën a baax inna haasal quran yahdi lillati hiya aqwam wajaadilhum billati hiya ahsan ci loolu la alquran di woote ci loolu la Serigne Touba di woote Serigne bi neena na loolu la leen di dénk alaykum wa rahmatullah